كتو متى المصطفى عن كل مفسدة والصرف من خرفا يا ya جاره برا يا مالك الملك يا من جل الهوادين ارحم جميع الورى يا هادي الردى tey jii di bisu 15 mooy li nga xam ni mooy wane ni ñaari at jàll na ci bi suñu mbokk moomu suñu xarit suñu doomu ndey kooku di Fallou seen daanoo fii waxoolee ci fii ñu taxaw ni fii la mbir mi xewee woon fii nii lañ ko jëlee woon loolu di xam ne mooy baqaram d'une façon injuste donc bis bi bu dellu siwaatee dañuy def comme saa su ne ñun waa commission sociale ànd ak tey ji autorité wu campus bi li nga xam ni mooy sargal sargal tey jii kooku di suñu camarade bi waaye it ñaanal ko moo waraloon wàccal kaamin boobu nga xam ne defal nañ ko ko sànq waaye bu buñ ci jógee dañuy ñëw fii ngir fàttali ko ko fàttaliwaale ko Sénégal yëpp ni kat amoon nañ suñu benn mboq suñu benn xarit boo xam ne fii lañ ko boomee woon nag luñ koy def du leen lu dul wane ni loolu nga xam ne moom lañ doon laaj ca booba muy ngir waala yoon def li nga xam ni mooy li war tey jii lañ ci gën a taxaw tey jii lañ ci gën a dëgërloo te tey jii lañ koy gën a yuuxu ci askan wi ngir ñu xam ni loolu kat waratul am ci université yi waaye lii dimbali nit ñi ba waratul am ci université yi mooy kat tey jii euh, voilà que la justice puisse s'effectuer comme il waaye bu loolu yëpp weesoo it dañuy fàttali ki ni. am na ay revendication yoo xam ne ñu ngi woon ci taabalu tey jii euh, bépp autorité parce que le président Macky Sall avait pris des engagements dans ce sens bi ci mel ni tey jii li nga xam ne mooy voirie interne bi waaye lu ci mel ni tamit wifi fii ñu gis ni boobu ba léegi effect euh, effectivité amagul ci revendication yooyu ñuy fàttaliwaat ni ay mbir yoo xam ni la ay diggé woon xam ni yu demoon ci étudiants yi la te day doon mbir yoo xam ni euh, defar ko wala satisfaire ko dina tax ba étudiants yi dootuñu duggati ci mouvement yooyu nga xam ni mooy waral tey ji injustice di am ba nit di ci ñàkk bakkanam bismillahi rahmaani rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmaani rahim rabbi bima yasra asana asfaja bija yafte liman lillahi xad laja rahmaanu habli jami rahmataman yuxni ani sari man quranahu xara kutu matal mustafa hun kulli mafsadatin wal sarfa min kharha ya man jaruhu mulki ya man hawadin irham jami'al wara ya hadiyan radha